dafa am lu xamante dafa soxal sama internet yi xam ma yóbbu fii yëpp ñi ma andi fii loolu lañu bëggoon ñe nga am ak Bakary Sow bi nekk Séville def na ci vidéo d'ailleurs mu ci chaîne pour képp ku xamantene mo bëgg xam kan moy Bakary Sow mu ci chaîne bi ak Ibrahima Sow bal ñe nga am ak ñom waaw Bakary Sow Bakary sama dom la mo moy sama taw voilà Ibrahima sama jarbat la sama domu frère la donc du coup ñoom ñaar ñëpp maa leen yobbu ma leen yobbu Espagne. ñom jëmono bi ay ban ban âge ni am à peu près ñom ñaar. voilà Bakary il est de 2005. Ibra il est de 2006. comprendre nga donc ñom benn at lañu maganté comme ñom ñoo juddandoo won ci benn kër parce que avant may ñew sama kër fi Mbaaw on était dans dans la dans la maison familiale quoi ñom fofu lañu jiddo sax. donc ñom ñom Sénégal lañ jiddo si Sénégal lañu jiddo wa mais dañu téla dem nak parce que Bakary bi mi dem Europe rek presque 2 ans et demi la am bi ma koy yóbbu. xale bu ndaw Ibra 1 an et quelque. parce que comme ñom ñaar dañ nek ay xalé yi màggandoo. di fondo et tout dama amone ñeemantan yobbu Bakary baye Ibra donc j'ai renvoyé Bakary après ci laa ñëw indi Ibra pratiquement foofu lañ màggee. donc amour football voilà faut la fa la amour football c'est une famille bi la quoi kon ko yow sa papa dafa football yow nga football amour je pense que a rien ko transmettre. non c'est le sang. Hmm. C'est le sang football bi moom seen deret la nekk quoi ñoom football, ñu footballul sax dañu war le football. Bon âge lañ commencé football Ils ont demee Espagne à l'âge de 8 ans 9 ans bon âge pratiquement à l'âge de 5 ans, 6 ans, on a commencé à à école de football. Mm-hmm. Voilà, les nek, bon. Ibre on won Malaga, mais avant de Malaga, on mm -hmm. demone ben équipe euh, bu wax Toro del Mar, mm -hmm. fofu la commencé. Mm -hmm. Même Bagari sa bu ñu Espagne tam fofu la commencé. Ñom équipe bobu, équipe bu ndaw la rek quoi. Mm-hmm donc ñom ñaar ñom ñoo ñoo do mais avant may ñëw ci polémique bi xam nga euh, parce que junne polémique sama ancienne chaîne bi dama ma son def benn vidéo sur euh, Ibrahim Sow mhm. parce que bëri na ay site yu ñëw wax ay xam bëri won ay information do xam yeen moy dëggal moy mooy fen man ci jamono boobu wurna ba sonn sax pour dégg agent wax wala papaam wala yu démé non amuñu woon la bonne information mhm. tey jii lu tax mu juroom polémique dañu gisoon Ibrahim Sow xam nga ñu gis si petite catégorie bi gars yi muy dugal yenn bii surtout am na bii mu dugal bu nice contre euh, Betis Séville si sama trompe pas xam nga bëri woon nag Sénégal bi mu defee vidéo bi dafa wàññi atam dafa ëpp ñi affaire ba yow sax contacté woon nga ma si jamono boobu ñëwaatul ñu un peu si histoire bi. waaw pratiquement Ibrahima moom gabareem sax ñun si famille bi sax daf ñoo xaw a jaaxal déjà parce que loolu dafay am ci nit. waaw boo xoolee Bakary moo ko mag mais boo gisee boo xoolee moom moo ëpp Bakary sax loolu dafay am ci doomu aadama quoi moom il est né comme dafa précoce mais n'empêche que aussi tamit bon xale la quoi Si xolé ay bi mi sogo a en Espagne tu la wanee photo da nga non c'est pas vrai par rapport à évaluation bi mu def même toi bi sax ñom ci photo yoy lañuy référé pour xamné ki xalé wu ndaw la moo buma bu ñi déggee doon wax mais après ils ont ils ont compris quoi ils ont compris que le gamin il est voilà il a grandi en Espagne il a été là-bas quand il avait presque même pas deux ans donc il y a des choses yo xamantane bon ñàkk xam la won rek quoi té aussi il faut nit ñi xamal leen mhm. tu vois. donc yow bo andi tontu daal loolu nga leen war dafa télé a Espagne teel na xam télé précocité bi tam da leen jaaxal sax yéen famille bi xalaato leen si loolu mhm. parce que man aussi tamit loolu mëna ko confirmer gis na benn photo bu xamante ne temps yu nekkee Malaga la mhm. ma gis na tamit mu tuuti won bo nga xol bimu démé demee rek nga xol mo ëpp Bakary mu évoluer en plus les entraînements là-bas xam nga ñom déjà ñom bi leen Séville jëlee ça fait pratiquement trois ans une ci formation. ñom ñaar lañ jëlandoo quoi ñaar parce que ñom ñaar biñu nekké comme li ma la rek Toro del Mar qui qui Malaga. dañu def ben championnat d'Espagne. Mhm. xol ñom sen catégorie quoi. ñu def sélection au niveau de Andalous. Mhm. xam nga Espagne dafa bëri ay. ay comment dirais-je là ay province quoi je veux dire. Mhm. légui ñom ñu won lan ci sélection Andalous bi. légui biñu démé nak euh euh, tournoi boobu nekkaguñu non Bobo Séville man ak Vigo Celta Vigo foofu lañ championnat Espagne mhm. donc zone bu nekk Espagne dafay indi ay meilleurs joueurs mhm. par exemple bi Andalou mhm. sélection la sélection Andalou. Les ñu qui ont tournoi bi ma ni à Celta Bigo Bon, j'ai fait pratiquement 10 jours là-bas parce que tournoi bi. catégorie. non infantine la catégorie euh, infantine parce que boobu ay xalé lañ. voilà gens qui ñëwé fait ci tournoi bi bon Bakary il a été nommé meilleur joueur meilleur buteur du tournoi bi. Ibra deuxième meilleur joueur meilleur buteur xam nga déjà lolu tout la quoi. pour que yenen club parce que c'est un tournoi bo xamantene fune fu ne ci aduna bi ñëw. Manchester c'est pas seulement les équipes espagnoles hein. Manchester mi Paris Saint-Germain ku nekk représentants équipe parfois dañuy ñëw dañ leen mhm. tournoi donc bi leen fait, il y a pas mal de joueurs qui nous ont contactés pas mal d'équipes même mhm. qui nous ont contactés le FC Séville Betis mhm. Villarreal Valence Barcelone Real Madrid euh, Paris Saint-Germain Manchester City voilà ak euh, Porto. voilà donc yow équipe yu prestigieux nga wax. Real Madrid Barcelone. mais lu tax nga bàyyi fi Barcelone Real Madrid jël sa ñaari doom yow tànnal leen Séville lan moo tax parce que performance nga def équipe yu mag ñëw def nekk compétition boobu c'est normal que tamit ay équipe yu mel ni Paris Saint-Germain équipe yu mag yooyu bëgg say joueurs lu tax nga tànnal leen Séville. waaw xam nga xam nga nit bul xool tur. Ah. da ngay xool formation bi.

donc après ma whole proposition yi nag commencé peser xool bu Séville mu intéressant trop légui nak Séville ñu may ñu ma jàmm. loolu topp di la sonal à chaque fois chaque jour dima ma invité ñëw ci stade bi xool visiter dem seen centre de formation bi xool boy ni ñi dundé et tout. Mhm. j'ai parlé avec des des amis espagnols. Mhm. ñu en tout cas FC Séville mom seen centre de formation amul bu ko gën ci Espagne. c'est vrai que bu Barcelone baxna Bon Madrid baax mais Séville c'est le top on parle de Masia on parle de Cassia xam nga lu nga Séville mais xoolal les grands les grands joueurs yu génn Séville mm-hmm. xoolal Navas xoolal Jesús Navas mm-hmm. ak yenen ak ñeneen ñoo xam suma su la doon limal fi da nga ñoom ñëpp jaar ay Lenglet ñom ñëpp jaar nañ Séville Hein? Mm-hmm. Rakitic avant muy dem Barcelone Séville la nekkoon ñom ñëpp jaar nañ Séville donc après je me suis renseigné ma xam ne ñii seen centre de formation baxna ma dem visiter ñu jël ma wan ma dëkk bi wan ma lépp. donc c'est pas par rapport au temps de jeu parce que mën nga ne Massia ak wala wala gëpp c'est pas par rapport. non non non non non moi c'était c'était la formation déjà la formation c'est pas seulement le foot. Mm-hmm. il y a les études aussi. ok nga boo ñëwee ñu wan la seen. seen formation méthode bii la méthode yoree xale ku nekk sa doom nga yor quoi. da ngay bëgg am éducation bu parce que le football ça passe après. Mm. donc ñoom dañ lay instaurer ci école bu baax. ngay jàng di football donc boy ñom actuellement ci loolu lañ nek. voilà. donc euh, je pense que leer na ñu ñëw ci polémique bi leeral na ci hein, polémique euh, concernant Ibrahim. Sow Bakary tim franchement un joueur formidable Du dougal ay coups c'est pas nak mom un Cristiano Ronaldo le moom ak Ibrahim temps yi nag gis na né ñu doon wax côté masse beeg yooyu ñoo xaw ñoo ñoo commencé tollo carrément xam ma gis na c'est plus que des frères franchement à chaque fois que ça soit Instagram bu bu Bakary Instagram bu Ibrahim, à chaque fois ñom ñaar ñoy nek et même yow sax ces photos yi ngay déglu parce que da ngay gis né plus que des frères lañ quoi. loolu xamna depuis bi ñu xalé la donc dañuy ñëw instant yi ci yeen côté ba centre de formation bi. c'est mhm. vie daf leen instauré ñom ñaar ñoo bokk seen ben chambre. Mhm. depuis que ñu nekk ci centre de formation bi ñom ñaar ñoo bokk chambre. to ñom ñaar parce que amna ben moment gis ma la ñu bokkul catégorie instant ñu bokk catégorie wala nu démé waaw c'est-à-dire xam nga catégorie yi par exemple mën nga nekk mën nga nekk manam âge bu ndaw ñu surclasser ñom dañ leen surclasser ñom ñaar ñëpp dañ leen surclasser ci catégorie yi. Mhm parce que ñi ngi ñi football cadette division d'honneur mm-hmm. danaka bo jógee fofu rek yaangi ngi yaangi yaa série yaa euh, FC cvb yaangi ci équipe bu mag bi déjà direct donc ñom seen âge sax yeggul fofu mais dañ leen surclassé quoi. donc yow dans 2 ans voire dans 3 ans gis nga leen si équipe A bi équipe A bu Séville ou bien da ngay mën nga am yenen ki yenen offre gars yi ñëwaat proposer le parce que ku ne xale tamit jamono bi mercato dafa metti

voilà di jéem xol ni ni ñuy ni ñuy jegee sa famille wala ni ñuy jegee sa agent pour xam nga mu le proposer yenn yi mais mën naa ne ñoom ñi ngi ils sont bien à Séville quoi waaw ñoom moom franchement ils se sont fait des amis xam nga te équipe bi bëgg nañ leen vraiment président beeg dirigeant yi ñëpp leen bëgg quoi donc pour le moment ay xale lañ dañuy évoluer foofu petit à petit quoi. Mm-hmm. Mm. Légi, avant ñu ñëw si ci équipe nationale du Sénégal da am lu xamante ne foog ma laajte ko ah, mooy euh, équipe andalou boobu noonu parce que sénégalais bëri comprendre ñu xam naa si benn vidéo sax expliqué naa leen parce que dañ koy gis ñu nekk Séville ñu gis leen ñu nekk beneen club ba ñu bëri sax posé nañu question pourquoi ñu nekk Séville en même temps ñu ñu gis leen ñu sol benn maay bu verte mën a expliqué leen euh, andalou affaire yooyu affaire raison affaire yooyu mais dama koy bàyyi ci yow nga gën leen expliqué lan moo tax ñuy nekk Séville en même temps nekk andalou boobu noonu waaw loolu moom soo nekk soo nekkul foofu sax pour ñu expliquer lu ko déjà da ngay da ngay xawam problème ñom andalou moy sen dret andalou moy sen dret andalou mo gëna fort sax FC Séville. c'est comme Barcelone ak Catalan yeeg yooyu. comme Catalan voilà t'as tout compris donc la sélection andalu. Mm-hmm. du du FC Séville kese. dañuy manam dañuy jël ay joueurs yi gëna xarañ. Mm-hmm. ci bétis mm-hmm. jël joueurs yi gëna xarañ. Séville jël joueurs yi gëna xarañ euh Malaga. hein? ak euh, yenen équipe yi nekk foofu am Granada ñun ñëpp ci andalou bi lañ nekk région andalou bi région andalou jël équipe. loolu mooy la sélection andalou. Hmm. loolu moo gën a diis FC Séville. parce que c'est foog nga am temps pour la jël. ñooñu ñooy représenter la sélection andalou au niveau du championnat d'Espagne parce que chaque année à part championnat yi ngay football ak sa club. Hmm. daf ci am benn championnat boo xam de championnat d'Espagne. boobu par sélection la dañuy xool tous les zones de l'Espagne ku ci nekk rek nga indi sa sélection ñu xool benn dëkk mhm. joué ko foofu mhm. joué phase finale yi foofu loolu mooy la championnat d'Espagne léegi ñoom dañuy représenter la sélection andalou ci championnat d'Espagne boobu terewul leen nag ñoom ñu ngi football seen championnat mhm. espagnol boo xamante ne ci biir FC Séville ah, dañuy après lii lañ koy après saison lañ koy def wala ci biir non ci saison bi ci biir saison c'est des dates yoo xamante ne c'est fixé pour ça mais ci biir saison bi la quoi